dikkati naa ca bor ya turbine moo ko xëyee niki tey mu xamal ma ne ñetti weer yoo xam na ñu ci bopp nguur gi moom gouvernement gu président Diomaye day lépp na junni téeméer ak juróom fukki milliards lu jege téeméer ak juróom fukki milliards ñu jëlee ko ci marché bu UEMOA ñaar fukk ak juróom ñetti milliards ñetti fan ci weeru mee la juróom benn fukk ak ñetti milliards yi fanweeri fan ak benn ci weeru mee juróom fukki milliards yi nekk juróom benn fan ci weeru juin ñetti téeméer ñaar fukk ak ñeent ci milliards ñu jëlee ko ci BAD fukki fan ak benn ci weeru avril ñeenti téeméer juróom fukki milliards euro bon ñetti fan ci weeru juin ñaari téeméer ak fanweer ci ay milliards di jëlee ko ci FMI mu war a yegg si nag ndorteelu suliet bii waxtu woowu deux minutes pour lire l'essentiel naan maan député yi nga war a janoo ak Cheikh Diba mi nga xam ne moom la ñu dénk nag koppar gi Arona Kane di seppet seppetee budget bi xam le ni tension ci wàllu koppar moom ña jëm lu toll ci juróomi junni ñaari téeméer juróom fukk ak juróomi milliards mooy dépense ñeenti junni juróom-ñeenti fukk ak juróom ci ay milliards di recette téeméeri milliards milliards nag war a manqué fukk ak ñeenti milliards yu toftal juróom-benni téeméer juróom-benn fukk ak ñett ci ay millions ñu yore ko ci bor bor gi nag yokku ci téeméer boo jël juróom-benn bu tegus lu toll ci ñaari téeméer ñaar fukk ak benn ci ay milliards di ay fonds spéciaux waxtu woowu turbine yéene kaay naan man coow li coow li mooy mburu mi mbaa nag jëmunu ci mburu muy manqué ci réewum Sénégal source a naan kon fi mu ne day teesante beeg coow li ci réewum Sénégal mburoo ko waral mburu mi nga xam ne diggante gouvernement gi ak mëñee ña ngay teesante lu am jom lanket lu ñuy seen muy ñëw nañu daw te xam ni état bi ci boppam la ndax déclaré na leen guerre vox populi naan man état bi ci boppam juróom-ñaari meññee yi nekk ci réewum Sénégal la janool naan leen xool leen ma ci bët ba ñu xool ko mu naan leen wàññi mbaa kupp bopp fa yallaahu nguur gi naan leen yéen meññee yi da ngeen bëgg xañ sénégalais yi mburu mu doy moo tax nag ngeen ni wal gi du ngeen ko wéyal dees ko wéyal ci réew mi lu ko mooy bopp ci suuf gouvernement gi naan leen duñ tayam ay mission de contrôle nag moom lañ leen di yónnee xool ndax yéen a ngi wal wala walu leen bés bu ngeen walulee day làmbaay dana ñaaw fa yallaahu le quotidien le quotidien naan maan njëg yi day moo jaxase meññee état bi suur soo a naan ko déet dama ne la coowal mburu ci boppam fi mu ne moo nar a jaxase réew mi le nan naan koon ma ñëw rek meññee yaa nga naan proposition gouvernement bi àndun ci gouvernement naan leen sama ngañ jëfee rek béy di aañ nan leen xam nga lan la yéen bu leen xool li neex ma sàmbaak li neex ma demba ña nga xam ne ñoo gën a néew doole gën a vulnérable ci réew mi jàppale leen ñoo ñu leen loxo ñu jóg laas yéene kaay moo taxit fagu ca wetu askan wa di dal nag ci kaw mëñee naan leen wàññi rek askan wi ngeen bëgg xañ wàññi gi duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg wàññi rek tribune naan maan lan moo tax nag njëg yi di résisté di gën a yokk waxtu wa nga xam ne état bi mi ngi jël ay milliards am ma mani la di ko ci def ngir njëg yi di wàññeeku critique yéeni kaay naan maan Ousmane Sonko booba bàjjo bi ma nga war a janoo ak parlement bi lam fay wax ñu xaar ko lool moom Ousmane Sonko moom jiital gouvernement gi nag yorey dossier yoo xam ne du jeex du xaaj ay loxoom te fim ne koy joor bari na moom Sonko ña koy galgal ngir mu fakkastalu daanu ca bari na ña nga xam ne nag ñoo ko yéene échec sikundik sikundik gan la Ousmane Sonko mën a def ba nag jëlee ndam ci janoom ak député yi ndax nag lenn mani la tarfatal ay ni moom Ousmane Sonko duñ ko ko baal su tëbee dara duñ ko ko baal virgule mani la duñ ko ko baal feuille de route bu jub kocc moom la Ousmane Sonko war a génnee wax nag fan la ñaabar ñaabaree jëm réewum Sénégal le discours ba di lëmb nag gaaya di ko xaar loo xam ne dina jëriñ askanug réewum Sénégal lu wuuteeg ay bruit kaay bi naan maan tëdd na nelaw na gént na ba tàyyi projet bi toog na janeer nii projet bi yéene kaay bi naan maan yàlla dogal na ni projet bi nag fi mu toll nii mooy doxal maanaam fi réew mi toll yàlla moo dogal ne projet bi ma ni la mooy doxal ëllëgug senegal te coow li coow li critique naan maan moo taxit gëw ma ni jafe-jafe dina ko am ngir juróomi at yi ñu jëm Ousmane Sonko wax dëgg-dëgg fan la jagat jagatee jëme Sénégal gannaaw ba mu ko fekkee ci jafe-jafe yéene kaay bi naan maan bul dem Guy Marius Sagna na gouvernement gu Sénégal jagat jagatee assemblée nationale di ay question yoo xam ne moom guy nag ay tontu la ci bëgg vox populi naan maan ab loi boo xam ne day jàppee kuy jëfee borom ñaari tur yi ni raykatu nit Cheikh Abdou baara dooli day yóbbu na ko ci assemblée nationale direct news naan maan waxtu woowu moom président Macky Sall ma nga yëngal gësam di wax ci urgence yeeg défi yi waaye Sall dafa mel ni nag ku xeeb wala ku faale wul nouvelle responsabilité jàppal am APR nga naan autorité yi yees yi bàyyi leen xel def priorité ndaw yi ak soxna yi yi nga xam ne defoon nañ ko ci wàllu entrepreneur partenariat wàlluk financement loo xam ne yi day jëmale kanam ndaw ak soxna jël leen ko ngeen joyanti ko jëfee ko moom sal ngaari lam tooro bur gédee nga naan leen yéen autorité yi yees fexe leen ba Sénégal doon benn bopp sénégalais bu ne gis sa bopp ci réew mi ñu jëfee Sénégal goo xam ne ñépp koy bokk du am xàjjeeg seen du am boddi konte waaye tam du am genn par parparloo yéen kaay Pape Jogoy Fay bi naan maan moom Sall day wax na ba nuppi dul benn yoon nouvelle responsabilité bu Amadou tax Pastef am na ko kay diggante Souleymane Jules Diop ak Mame Boye Diao Dakar Times naan maan mbaa du ëllëgu franc CFA du ñaaw ci réew mi le peuple quotidien naan kon en tout cas France moom ma ngay gàttandu Sénégal dëkkee di ko defar yéeni kaay bi naan maan gannaaw ba ñu ko dàqee ci état major bu l'armée de terre France ma ngay honoré général Condé Emmanuel Macron ci boppam tappal ko médaille waxtu wa Walf Quotidien di ma xamal ne ñi yëngu ci BTP ña ngay daw ci ginnaaw borug ñetti téeméeri milliards waa pharmacie nationale d'approvisionnement di sàkku ci état mu jébbal leen ñaar fukk ak juróomi milliards ndax fournisseur yaa ngi leen di tongtongal l'indépendant yéen kaay naan maan waa CNP ci lu jëm ci assises yi nu jagleel entreprise yi ña ngi ko fas yéene amal ñaar fukki fan ak juróom-ñaar jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juin bés bi le jour xëyee tey lu jëm ci wopp covid 19 bi tribune yéen kaay naan kon ma ñëw rek docteur Bousso ci boppam ma nga naan moytu leen andi ab crise boo xam ne amul ci réew mi te moytu leen nag ñuy joxoñ baaraam ak daw ujaa ci jógee màkkatal mu karam crise bi nga xam ne bëgg nañ koo woote ci réew mi amu fi wax reportage bi nga xam ni def naa ko ci masque yi waa ji nee na ba mu déggee coowal covid ñaari carton ngi masque la dem jëndi waaye soo moytul lépp lay perte ndax gaa yaa jëndul waxaale wun sax waxtu wa nga xam ne la gënal autorité yi mooy ganale yi ci boppam ñu teg ci suuf l'enquête ko de dajee naan mante coow ak xeexoo ga amoon ca Medina Gunaas lu toll ci téeméer ak juróom-ñett fukk ci doomu aadama day defeere nañ leen ca parquet ba yéen kaay bi nan maan desal ak man ma xamal la ni ndey gouvernement gu Sénégal tàccu wala yi tàccu li ndax Sénégal Express mi ngi bëgg taxaw ci réew mi di compagnie privée ko Quotidien naan maan coolu coolu ci réewum Sénégal de lii xale yi nga xam ne ñu ngi jëfandikoo drog mi ngi leen di sànk lu toll ci ñeenti junni ci ñoo xam ne dañu jëfandikoo sinee yi ba tàqalikoo seen sago wala am jafe-jafe wér-gu-yaram yóbbu nañ leen ci hôpitaux yu Sénégal yii di leen faj l'observateur nan maan moo tax it waa ji day magam handicapé la mu jël chaise roulante ba nga xam ne mag ji moom la doon toog doon suturaam jël ko jaay ko bam ca noppee sàngara la ko jëndee ko ak lu mën a mbokk yi ñu ñaan jàmm tey ndoog